Luma ma wax yéen a kat fu ma jëm yéen a kat ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal ci junne dëggal ma bësin ni ngeen di bëggee noonu lay dégg. tout maa ngi nekk sur le terrain di la liggéeyal nag gisuma ci dërëm gisuma ci yaa ma ñor yaa ma tax di liggéey sama gox moo ma tax di liggéey damaa bëgg kër sama Kër Masar am changement total damaa bëgg Kër Masar man lépp ko nel te loolu yow laa ci wóolu. nga xamante ne tey mooy la jeunesse. Raison pour laquelle le grand cadre dirigé par le coordonnateur Pape Ibrahim Demba andi yu ñaawul yi dañu colère ak colère mu ngi Massar il faut que yen jigen ñi yeen jeunesse ngeen li nga organe de décision yi secret da ngeen di ñëw bokk fuñ koy décider liñ fay séddale ngeen jël indi ko li nga xamante ne mooy seen koñ loolu mooy dëgg loolu mooy fulla kon maa ngi gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp jërë ngeen jëf. waa interdit dégg naa seen doléance tey jii nii waa grand cadre ñoom ñoo déplacé wu ñu ne grand cadre unitaire mooy APR bu Kër Massar dañooy ñaan yàlla. président Macky Sall yàlla defal ko jàmm gis ngeen seen côté bii da doon def inondation bokk naa ci ñi nga xamante ne nii biñ jëlee municipalité bi tracé bi bi muy génn pour tali bi fu mu war a aw man ak kii nii Ela Ndior mi toog bokk nañ ci ñu joxe tracé bi pour tali bi am na benn li ma leen wax nii am na benn famille bu dëkk fii docteur Samb couple de pharmacien lañ bi ma ko koy wax naan tali bi danañ ko jaarale mooy seen fii gëmu ko woon. ma ne ko gis nga balaa ngeen xam ne nekk ak nit muy politique ngeen jàppale ko moo wóor surtout boo leen bokkee gox parce que tout simplement lépp luy ñëw dañ koy njëkkee fa ñu dëkk balaa ñoo yaatal feneen comme nag ñoo bokk suñu parcelle Jules dëkk fii ak yéen jàppale leen ko ñu jàppalante ñun ñëpp bu ëllëgee bu ñu yàlla mayee ñun lépp loo xam ne nit mun na ko nekk ci réew mi wala nit nekk na ci réew mi mun nañ ko nekk parce njàng nañ am nañ qualité bi am nañ diplôme yi am nañ capacité pour yor ko donc bu ñu bu bu ñu mun nañ ko yor bu ne bu ñu nee ministre mun nañ ko doon bu ñu nee directeur mun nañ ko doon parce que yàlla may nuñ njàng moomu te yàlla dogal na ay fonctionnaire lañ donc ci kaw loolu dama leen naan gën leen jàpp bu soobee yàlla bu ñu yàlla dimbalee affaire yëpp dana baax jeunesse bi gën leen jàpp yeen mouvement ànd ànd liggéeyal Kër Massar ñun dañuy wax mouvement ànd jàppalante ànd liggéey Kër Massar ak grand cadre unitaire bu affaire bu Macky Sall loolu la ñuy wax lépp lu ñu xewleeti bu soobee yàlla dañ leen woo ngeen ñëw bu jël amee ngeen jël yóbbu unité 10 bu wax amee ngeen wax bu dem amee ñu àndandoor dem lii mooy li nga xamante ne moom mooy mooy politique xam leen ni ñun ay gor lañ xamuñ yenn yi lépp luñ leen wax. day fekk moo ñu mën ko te bu jëf ba jotee danañ ko def ci kàttanu yàlla donc loolu daal laa amul loo dama koy wax su lay Souleymane félicitation yaayu Souleymane ñu ngi koy ñaanal yàlla imaam yi fi nekk sa kilifa yi suñu yaay yëpp dégg nañ leen wax maa ngi sant leen gërëm di ne Jules enveloppe bi ñun ñoo ko indi ñun ñoo la ko jox ñu may la ko jàppalee la ko pour nga seet ñi nga xamante ni ñoom nga nekk ñoo ci mën a dimbale nga dimbale la donc ñu ngi koy teg teg